biir kër Cheikhul Khadim te Cheikh Mouhamadou Moustapha waxoon na Cheikh Bukhari ne ko sa baay di nee na ma jaamu yàlla baax na fu ne waaye sakk ne na Touba kon lii Cheikh Mouhamadou Mountakha def ngir dundal la nga xam ne kilifaam yu tedd ya ak waajuram yu tedd ya doon nañ ko def mooy lii mu defee ndax Serigne Touba fu mu mos a nekk fu ne bu yor koor accès daa def dafa yokk. ba ñëpp xam ko bu dee lu ak ku ne xam ne tabuk tabuk sëriñ bi waaye bu yor accès kooru masar accès dégg naa loo ko laaj mu jox la ko ne la xanaa gan sama weeru teel bi nga koy waajale kon nag njabootu ak sëriñ Tuubaa gépp te njabootu ak sëriñ Tuubaa ko waxee ñëpp ci leen ngi ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha mi fi sëriñ suñu borom dëgëral ko kattanal ko ba mu jiite ko lu yàgg ndax jataay bi itteel na ko te ñor na ko te ci yàlla def na ci ab jataay bi ci la ko suñu borom dogale man nag maam ci sama taw feex bopp joo xam ne yàlla def na ba nga xamee ne rod na ci xelam rek te muy loo ne ci sëriñ bi la bàyyi ko man la ci jëkk waxal booba suñu aatu moo fi nekk mu yónni ba ci moom moo wax ko xalaat ni ko bëgg a ak fi ko bëgg a muy barab bi mu ne ma bu ma tam weer yëpp ñu di ko ànd ngay ne sama wet ak njabootu Sëriñ Tuubaa yëpp di ko dundal ba yàlla def na fii may toogee nii sax ci ba moo waxoon Serigne Moussa ne bu ma soñoon Basiiru toogee nii ci sama wetu ndeyjoor ñi moo ko tëralee nii jataay bi doxee ba léegi kon la tawfeex joxe ne min fadli rabbi kon dañ koy ñaan rek di ñaan ñi fi teew ñëpp suñu borom jéggal leen defee leen tawfeex ci barke Sëriñ Tuubaa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laaj bi euh, boole na ñaar daara Hizbut Tarqiyyah yi muy loo xam ne lu xawoon a jafe la yàlla defal ko ndam loolu mu am ko te sëriñ Mbay Jaxate wax ne dañ àndi déggoo def gën a lëngoo te bañ a tàggoo ba àjjana waay ban gis-gis nga am ci boole ko mu boole daara yi ak ñoom nan ban soñ ngi leen soññi waaw loolu moom euh, sëñ bi moom lépp lu mu def sami'naa wa ata'naa rek waaye ab murid moom baaxu di xalaat li ñuy wax sëñ Saliou daa wax naan ak taalibe am xel ko womat loolu nag boo ko déggee mooy allasina yu'minuuna bil ghaybi mooy lépp loo sëf sëriñ digal rek waratoo caa xalaat sami'naa wa ata'naa rek waaye waaye nag nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi moom sa ngëm day manqué kon ñoomi dañ leen ñaaral ñu xam ne lenn la rek ndax seex Abdoul Ahad Mbacké daa wax ne foo déggee ñaar day xëccoo rek adduna da caarax waaye bu yàlla kese taxee xëccoo mënu ci am ndax nee na daal koy misaal ci ne doo dégg mukk ku ne xajaloo fi xajaloo fi damay julli xajaloo fi damay julli doo ko dégg mukk ndax kon suñ borom yaatal lépp kon foo dégg ñaar di rek na ko waxoon dara jaay njëriñ a tax kon nag bu fekkee suñ Tuubaa rek keneen tax a jug te dégmal sëñ bi kon lu mu ci doon rek eh, seetaan moom mbirum suñ fu mu jógee dina làng waaye du ci am dam kon nag yàlla def na ci Cheikh Mouhamadou Mountakha te ay kilifam daa ko ci liggéeyloo day mel ne tawféex jooju moo ko topp ba yàlla def lii itam ñu dajoolu waaj moo tax daaw ci màggal ga waxoon naa waxoon naa leen déwén waskuru ni'matallahi alaykum iz kuntum fa allafa bayna qulubikum fa asbahatum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum ala shafa ala safa hufratin minan nar fa anqadhakum minha dama koy def istilaax rek ñoom itam yabe leen ko rek ñoo xam ne li ñuy def euh, xel du ko mat xalaat du ko mat waaye ndigal leen loo xam ne nañ xam ne sëñ bi moom lu mu jékki-jékki xalaat rek boppam te mu lu mu jógee ci moom ndam rek a ci jógee asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh